salaamaaleykum sama mbokk jullit yi sama mbokk sénégalais yi fépp fu nit nekk di ñu déglu di ñu bége ñu ngi lay sant di la gërëm te di la ñaanal sunu borom yal na yàlla indi tawféex indi xewal indi sutura defal ñu ko defal ko mbooloom jullit loolu weesoo daañ julli ci sang-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi di ñaanal ñëpp jàmm senegal di ko ñaanal sous région bi di ko ñaanal Afrique ak seen eh, kii àdduna bi yëpp daal yal yàlla def fépp jàmm saawaan baawaan ba ñëpp xacc ñi ngi tey jël benn sujet bi nga xamante ni moo jëm ci ah, càcc wala lu réer xam ngeen yàlla bàyyiwul dara ci alxuraan bàyyiwul dara ci àdduna bàyyiwul dara ci secret yi yàlla ni mu bëggee doomu aadama noonu la bëggee ay matériel am ak ay ñaqam dikk ak accompagner yàlla dikk ci musal yàlla dikk ka aaral dikk ka barkeelal parce que bu ñuy ñaanee am-am dangay ngay ñaanaale barke te barke bokk na ci luy ñoŋal sa alal xam nga di liggéey ñu koy sàcc di liggéey muy sey di liggéey muy réer di liggéey muy dellu gannaaw loolu àndul ak barke ba ñuy ñaan yaa ngi ñaan yàlla am alal am yokkute am xewal muy barkeel di jëm kanam ci biir loolu ñi ngi leen di sant ci déglu bi mais aussi di leen wax ni leen yàlla comme bàyyiwul dara li gën a am solo mooy aar sa place aar sa kër aar sa sa bérébu liggéeykaay sa boutique aar sa matériel même par exemple nga am sa bureau sax war nga ko aar période bi nga fa nekkee parce que nit mën na fa indi liggéey nit mën na sàcc sa mën na sàcc say bagage mën na dugal bagage génne bagage def leneen <clears throat> nit mën na indi par exemple dara dugal ko fa piéger la nit mën na sàcc sa dossier dem jox ko keneen sa noon pour ñu indil la jafe-jafe yooyu lu mat a bàyyi xel la parce que nit day nekk ci place yaakaar ni ndeysaan kenn bàyyiwu ko xel fekk am na ay noonam yoo xam ne ñu ngi koy préparé pour sàcc ay dossier joxe sa ay secret feeñal ka weer ka wala chantage ka wala yàqal ka wala toroxal ka wala génne ko palaasam yooyu yëpp dafa nekk ay yoo xamante ne nit daf ci war a bàyyi xel nañuy bàyyi xel ci place yi ñuy liggéey muy boutique muy bureau muy lu mu mën a doon muy otel yooyu yëpp dangay ngay aar place bi boo ko aarul dañ lay sàcc wala ñu lay yàqal wala sax seytaane mën na fay nekk di la delloo ginnaaw di la di la yàqal te comme ñaan bàyyiwul dara lépp mu ngi ci sunu loxoy boroom yàlla bàyyiwul dara yàlla mu ngi teg fii ay nitam yi nga xamante ni ñu ngi ci kaw suuf di ko fi taxawal di jàppale doomu aadama yi ci ay bëgg-bëggam moom suñu borom kon nag am leen ngëm am leen jom ak fulla bu tol na ah, buñ leen bu ngeen amee seen teraanga ngeen protéger ko def ci ay ñaan yu wóor yu leen aaral seen place yu leen aaral seen teraanga am na nag ñoo xamante ni par contre dañuy sàggan am ñoo xamante ni dañu saggan trop trop trop ba yooyu daf leen di faral di dal nga toog ba si yàgg ñu sàcc sa ay boîte or toog ba si yàgg ñu sàcc sa copper for ñu ubbi sa compte sàcc ko wala ñu fekk sa sa armoire génne fa sa xaalis wala par exemple euh, nga nekk fenn di dox ñu dugal seen loxo sàcc sa téléphone wala sàcc sa sa sa sàcc la daal walla jaaree la gannaaw daal jël sa alal loolu aussi bu xasee ba sàgganee ba mu xas la daal am na alal yu nga xamante ni walla ñu sàcc si altréalt sa oto wala sa sa bagage daal lu mu doon mën nañ ko jël mais nag euh, comme yàlla bàyyiwul dara bu fekkee ni loolu daf la dal bu fekkee ne yéexuloo ñëw ci ñun ñëw ma ñëw ci man par exemple si yàlla xam-xam bi ñu may ba ñu dépêché ka wala ba ñu yàq ka wala ba ñu jaay ka jaayaat ka affaire bi dem sore walla réer mër ba nga xamante ni ka kay jënd mën na taxante loxo ku nga xamante ni kooku dafa bari kalaaj dootul feeñ yooyu boo sàgganul ba mu àgg ci niveau boobu pexe am na fi moo ñu sàcc sa bagage directement nga jóg ñu sàcc sa oto directement nga jóg ñu sàcc sa sa sa sa sa alal sa xaalis directement nga jëm suñ sàcc sa boîte or directement nga ñëw yooyu automatiquement yàlla am na ay xam-xam yu mu ci may am na ay secret yu mu ci may ba danañ ko def lu nga xamante ni kaka sàcc dana weeru wala mu def erreur mu feeñ wala alal bi loolu di dox di dox ba egsi si yow wala nga yëkk nga xam ñi nga xam sax dañuy sàcc ay jur yooyu yëpp am na tax yal nañ yàlla defal jàmm wala sa boutique toog ba si ak am ñu ko roñ yooyu yëpp mën na feeñ voilà am na ay secret yu nga xamante ni boo aarul sa place ba ñu jaaree la ginnaaw am na ñaan yàlla yu nga xamante ni dana delloo ci sa alal ci nu mu gën a ñoŋee parce que yàlla mooy nattu wante tamit yàlla day teggu nattu boo góorgóorloo boo ko ñaanee boo toroxloo ci kanamam boo sonnee boo boo tegoo ci yoon ci kàttanu suñu borom gindiku mi ngi fi ah, ah, jàppalante mi ngi fi. ba taxaw leen ci kàttan suñu borom Thierno Amadou la woon incha allah suba daa ñëw ci beneen waxtaan jërëjëf.